Assalamu alaikum, beaucoup internautes et sir bi bienvenue dans votre rubrique K sur le plat comme d'habitude K et la sur le plat ngeen tànni l'union sacrée a été scellée le vendredi 2 septembre dernier entre Kanakane, ak kan mais kii di Cheikh Yérim Seck journaliste magui, mag bi boo xam que le ko du Sénégal ak conseiller bi di Astou Dione nekk ko fële sa ñoom ñaar le 2 septembre le Sénégal yëpp mu nekk surprise Sénégal yëpp ñu ni ñoom ñaar marié wu nañ Sénégal yëpp mu nekkoon surprise si ñoom bett ñëpp tey si suba ñu xëyee si ñii di waa Sénégal ak Kawtef ñu ngi indi information après six mois seulement de mariage couple boobu tas nañ wala kii di as jon sax dellu na këram. lu indi nag ci information yu jot nee nañ ñaari star yooyu yu nekk presse sénégalaise ñoom ñaar fu mu toll nii ci information yu am Astou Dione na kii di Cheikh Yérim Seck ñu jàpp ne ñu ni lépp fu la jógee mooy gannaaw ba kii di Cheikh Yérim Seck génne livre bi xam ne génnewoon le 15 janvier 2023 tuddee ko Macky Sall face à l'histoire mu bëri ay coow lool lool lool am ay attaques yu bëri ak ay révélation yu bëri xam ne jëmane ko si kii di Cheikh Yérim Seck ak lii di vie privée gannaaw loolee jeune journaliste boobu boo xam ne ñëpp xamee nañ ko si maanaam intelligent am ak lii di xam-xamam ak maanaam lii di dalam muy as jon def ay information wala gëstu ay information si kii di Cheikh Yérim Seck ba moytu dafa gis loo xam ne neexu ko wala bett na ko lool si moom looloo waral mu daal di tas lii di sëyam jàpp na ni daal si information yu ñu jot maanaam kii di as jot depuis le 28 janvier bii la quitté li di domicile conjugal peut-être dafa fay comme ni ko wolof Njaay di waxee dem toog këram ànd ndax lépp di leer si boppam. wala dafa tas en tout cas lu si am daal mooy bu ñu jàppee ni si ñii di waa Sénégal ñoom nee nañ dafa dellu si maanaam këram tas na wala tasagul loolu yëpp leeraguñu waaye ñun waa Wassare Célébrité dañ fexe tout ba xool lan la moo si am daal di leen koy indil mbokk internet yu Wassare Célébrité lii loo indiloon tey seen biir rubrique car sur le plat comme d'habitude y a lañuy jël defal leen que sur le plat ngeen tànni si bu leen neex xam naa nag information bi ñu bëri peut-être dañ si content am ñoo xam merci beaucoup d'avoir pris votre temps de nous suivre maintenant il est temps de donner du temps aux autres paradigmes en attendant je vous conseille de manger beaucoup de bananes ciao Mamadou Rassoul